sëriñ di Naar Dieng ni mu ko baaxoo amalee at mu jot saa yu ñuy waajal tabaski bi muy yóbbul ki fi nekkal sëriñ Touba ay xari tabaski ci talaata ji dëppoog le 5 juillet 2022 la yóbbu lu toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukki xar jébbal ko sëriñ Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou xalif général des Mourides boolewaale ci fanweeri million ak benn ci sunuy koppar sëriñ di Naar Dieng àndu kooku njabootu sëriñ Naar Dieng gi ak mboolem taalibe yi. ci benn convoi jiital xar yi wutali daarul minan ak zikar su pasteefu bi sëriñ Sidi Naar Diène jébbalee sëriñ Mountakha Mbacké moom sëriñ Bassirou xalif général des Mourides addiya ji yëkkati na ay kàddu leexal sëriñ bi lépp lu jëm ci liggéey bi ak addiya ji. nee na mi ngi lay siyaar bu baax a baax a baax. ak mbooloo mépp mi mu àndal. ak ñeneen ñi nekk ci ginnaaw ñëpp. ak ñeneen ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi ci ginnaaw. doon jébbali si liggéey bi. doon jébbali ñaari téeméeri xar. muy ñaari téeméeri xar. ak juróom-ñaar fukki xar. xaalis bi. xaalis bi. di fanweeri million. di fanweeri million. ak benn. ak benn. jébbal nañ la ko. jébbal nañ la ko. te xeeb ko lool. te it nañ ko lool. ndax lu am rek sëriñ moom. ndax lépp lu nu am rek sëriñ Tuubaa ko moom. kon nee na boole na ko suñuy jëmm. di yeesluwaat. di yeesluwaat. di dolliwaat suñu pas-pas. di dolliwaat pas-pasam. ak sunu ngëm. ak um ngëmam. ak sunu wóolu. ak sunu wóolu. ak sunu yaakaar. ak sunu yaakaar. lii nu def nag. nee na lii nu def nag. nun sosunu ko. nee nun day sosunu ko. danoo fekkoon sunu maam. Issa Dieng. ànd ak Serigne Touba. ànd ak sëriñ Touba. di ko ko jëfal. di ko ko jëfal. ba nekkatu fi. ba nekkatu fi. sama maam Cheikh Mouhamadou Lamine. maamam Cheikh Mouhamadou di ko def. di ko def. ba nekkatu fi. ba nekkatu fi. ba ci sunu waajur. ba ci way juróom sëriñ Naar Dieng. kon ñoom rek la ñuy roy. nee na ñooñee rek lay roy. kon nag. kon nag. jébbal na liggéey bi. jébbal na la liggéey bi. tey ñaan. tey ñaan. nga dolli noo ñaanal. nga dolli nga dolli noo ñaanal. liggéey bi nag ren dafa ànd nag. nee na liggéey bi nag dafa àndoon nag bi ñuy bëgg màggal. bi ñuy bëgg a màggal. ñëw naa fi. ñëw na fi. tàggu la ni la. tàggu la ni la. maa bëgg a yeesal kër sëriñ bi. dafa bëgg a yeesal kër sëñ naar gi. ndax kër gi dafa ràpp lool. ndax kër gi daa ràppoon lool. nga jox ma ci ndigal. nga joxoon ko ci ndigal. ñaanal ma ci. ñaanal ko ci. nee na lépp jàpp ni. nee na lépp jàpp ni. noonee nga ma ko ñaanale woon. nee na noonee nga ko ñaanale woon Mbàkke. lépp jàpp ni. lépp jàpp ni na. defar na nanu ko. ba defe ko noo xam ni. ba defe noo xam ni. kawe na sax sunu njort. kawe na sax njortam. baax rek. ñu ngi lay sant bu baax a baax. di ñaan yàlla yàggal na mi ngi ñaan yàlla yàggal na sunu sa kanam lool. ba lépp loo xam ne rek. ba lépp loo xam ne rek. yéene nga ko. yéene ko. wala nga sémb ko. wala nga sémb ko. lépp noppi sa kanam. lépp noppi sa kanam. ba nga weesu koog lu bari. ba nga weesu koog lu bari. ñoo ngi sàkku ñaan ci sunu bopp. nee mi ngi sàkku ñaan ci boppam. ak njaboot gi. ak mboolem njaboot gi gépp. ak taalibe yëpp. ak taalibe yëpp. ñu nekk ci biir réew mi. ñu nekk ci réew mi. ak bitim réew. ak bitim réew. yokk akuk mucc. yokk akuk mucc. sax ci taalibe rek. ak sax ci ak taalibe Serigne Mountakha Mbacké moom Serigne Bassirou nag santaan bu baax a baax Serigne Sidi Naar Diène ci pastéefam ak taxawaayam ci liggéeyub Serigne Touba bi waaye yeesal ak feddali seeni kóllëre ñoom ñaar nga xam ne fàttali na ne ca jamonoy Serigne Naar Diène la woon ba léegi. mu ne alhamdulilahi rabbil alamin mu ne sëriñ Sidi Dieng sëriñ bi nee na ñoo ngi teewlu bu baax. dégg nañ kàddu yi. mu ne dégg na kàddu yi. jëf ji it mu ne jëf yi it agsi na. waaye ndokk bi nga xamee ne. waaye ndokk bi nga xamee ne. sa taxawaay bii. suñu borom mi def sa taxawaay bii. ñu wàññi coow li ngi jëm sëñ Tuubaa. noppi leen ngi jëm sëñ Tuubaa. moo ko def ci yow. mu ne suñu borom moo ko def ci yow. taxawaay bi. mu ne taxawaay bi. mel na xam nañ ko bu yàgg. mu ne mel na ne moom xam na ko bu yàgg. dafay gën a gën a wér rek. mu ne dafa gën a wér rek. gis nañ ko. mu ne gis nañ ko. gisu xol. gisu xol. niñ ko gisee ci suñu bët. mu ne niñ ko gisee ci suñuy gët. yëg nañ ko lool mu ne yëg na ko lool itam. yëngal na nu itam mu ne yëngal na ko itam. ci li am solo ci moom mu ne ci li am solo ci moom. mooy pësteefu Serigne Touba rek. yëngal na nu lool. mu ne yëngal na ko lool. yeesal na nu. mu ne yeesal na ko pekk. kon dañ ci gën a. gën a fas yéene gën a yeesal suñu mu ne kon dañ ciy gën a fas yéene yeesal ak jaayanteem rek. sa taxawaay mu ne sa taxawaay bii. dañ koy dañ koy dañ koy gën a fëtlee suñu suñu suñu bopp. mu ne sa taxawaay bi dañ koy gën a fëtlee jébbale suñu bopp. di gën a yeesal suñu jaayante. di gën a yeesal suñu gën a fëtlee suñu laxasaay. di gën a fëtlee suñu laxasaay. fas yéene ko ànd ak yow. ba faaw rek. yàlla moom moom moom moom bi def. mu ne yàlla suñu borom moom mi def. moo xam. mu ne yàlla moo xam. xam naa li mu def sama diggante ak yow. mu ne xam na li nga xam ne def na ko ci diggante yéen ñaar. ndax suñu ànd du du du tey. mu ne seenu ànd yéen ñaar du tey rek. sunu ànd fekk na fi. mu ne seenu ànd fekk na fi. suñu kilifa gu baax googee muy naar mu ne fekk na suñu kilifa gu baax gee muy sëriñ naar jenn. xam na xam it sama diggante mu ne sëriñ naar it xam na seen diggante yéen ñaar. kon loola booba la boo mu ne kon loole boobee la amoon. waaye nag la ma doon rëy rëy rëy yaakaar ci yow. mu ne waaye li ma doon am rëy rëy yaakaar ci yow. la ma doon rëy rëy yaakaar ci yow. la ma doon rëy rëy yaakaar ci yow. ak di rafet njortu ci yow. ak di rafet njortu ci yow. sama xel dal ci yow. ak xelam dal ci yow. dolli nga ci lu mu ne dolli nga ci lopp ëpp fuuf. ma tolloon. mu ne fa ko tolloon. lépp nag. mu ne lépp nag. ci taxawaay rek. mu ne lépp ci sa taxawaay rek la. mu yéene ji. Pastef bi ak Pastef bi. ak yitte ji ak yitte ji. kon loolu. mu ne kon loolu. rek. mu ne day teewlu rek. seeral ko sëriñ bi. mu ko sëriñ bi. seen diggante yéen ñaar. foofu rek laa ci mu ne foofu rek la fi mën a yem. waaye xam mu ne waaye la yàlla xam doy na. alhamdulilah mu ne alhamdulilah rabbil alamin dañuy dañuy gën a delloo suñu lépp sëriñ mu ne dañuy gën a delloo lépp su lépp sëriñ bi. sant gën koo sant suñu mu ne gën koo sante suñu borom bu baax a baax. gën koo jox suñu lépp. mu ne gën koo jox suñu lépp. suñu biir ak suñu mu ne suñu biir ak suñu biti. suñu tey ak suñu ëllëg suñu tey ak jërëjëf jenn mu ne xol seet na guy. jërëjëf. sëriñ Sidi nee na képp ko ànd moom na nga tàllal sa loxo taw xa amiin te lu waay bëgg na ko fas si ñaan gi. ginnaaw bu leen sëriñ Mountakha Mbacké Bachir ñaanalee ba noppi bañ dellu ci kër ga sëriñ Sidi Naar Diène santaat na bu baax a baax mboolem taalibe yi ci Pastef gi nga xam ne wane nañ ko ci àddiyee tabaski ji jëm ci xar yi ak mboolem li nga xam ne saa su ne ñu koy yóbbul ki fi nekkal sëriñ Touba waaye soññaat bu baax taalibe ci li nga xam ne moo nekk ci seen kanam. li tàmbali mooy lii nu nekk di barabu sëriñ bi. nee na li ko tàmbali mooy fii nu nekk nii di barabu sëriñ bi di kër sëriñ di yeesal gii ni koy yeesal. yeesal gii nga xam ne yeesal nañ ko. ba mel nii mu mel. ba mel nii mu mel. ñu yéene bu baax a baax ñu wane ci suñu yéene bu baax a baax rek. sant naa ci ñëpp. nee na sant na ci ñëpp. lu ci waay def rek. lépp lu ci waay def rek. sant nañ ko ci bu a na la ci bu baax a baax. li ci toppaat di màggalu sëriñ bi. li ci toppaat di màggalu sëriñ bi. moom itam la ngeen mën it lépp la ñu def nañ ko ci. def nañ ko ci. nee na loolat mi ngi ci sant bu baax a baax. ànd ak jëf yi ñu yóbbu léegi. ànd ak jëf ji nga xam ne moom la ñu yóbbu léegi. jébbal ko Cheikh Mountakha. jébbal ko Cheikh Mouhamadul Mountakha. mi fi nekkal Serigne Touba. mi fi nekkal Serigne Touba. muy ñaari téeméeri xar. muy ñaari téeméeri xar. ak juróom-ñaar fukki xar. ak juróom-ñaar fukki xar. ak fanweeri million ak benn. ak fanweeri million ak benn. ñu def ko muy addiya. ñu def ko muy addiya. ñeel ko. ñeel ko. ngir jëmmi Serigne Touba. ngir rek. sàkku nañ ci moom ak ñaan nag. sàkku nañ ci moom ak ñaan nag. ak ña mu nañ ci moom mu ñaanal nu. ñaanal taal bi yëpp rek. ñaanal taal bi yëpp rek. kon nag sant nañ bu baax rek. kon nag ñu ngi sant bu baax rek. ñu dolli ko waat positif yi rek. nee na ñu dolli ko waat positif moom. ndax bi rek ka ci solo. positif bi rek moo ci solo. fu waay yegg rek. sa projet war wax yeggale lépp loo yaakaar ni mënoo ko lépp loo soo ca dogee boole ca boole ko pëstéew soo Sëriñ Tuubaa dina la ci jàppale. Sëriñ Tuubaa dina la jàppale. kon nan góorgóorlu bu baax rek. bu baax rek. sant nan bu baax. na sant nan bu bu baax. gërëm daanaka lii daa mun la ñàkk. na daanaka waaye lan wax fa sëriñ bi. waaye nee wax fa sëriñ bi. tontu. ak li ko sëriñ bi tontu. doy na sëkk. doy na sëkk. kon tàllal ñaanal ñaan. waajal te yàlla nu fekkee nu fekkee ko ñun ñëpp. yàlla yokk xéewal yi. ak ak jàmm ji. ak waa rajo yi ak télé yi sëriñ baa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm. di ñaan sa borom wéral seeni cër maanaam te yàggal leen pinti panta leen ci sëriñ bi seen saayir ak seen baatin lépp dara bañ cay génn sëriñ bi te nu bokkale ko bu geesoo ngeen gis nu bu ngeen geesoo gis nu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu su weesoo xaru tabaski yi nga xam ne moom la jébbal sëriñ Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides sëriñ Sidi Naar Diène am na yeneen xar yoo xam ne jébbal na ko kilifa yu bëree bëri ci Mbacké Mbacké yi ak mbusoobe yi ak ñi nga xam ne ay néew ji doole lañ ngir jàppale leen ci tabaski ji